am Modou la man xawma ma ku ko ci réew mi te kat am na lu ci nit ñi xamul fi mu nekk dañu jàpp ni doomu sëriñ la mais finance islamique la def bi mu nekkee jaamiatu Azhar promotion bu mu jàngandoon moom fa nekk major fi mu nekk arab yi ñu ngi am benn boroom xam-xam bu ñëpp di tiitaroon ñu naan Kishk mu bari xam-xam bi ñuy def examen ñoom ñaar mu ne ko soo ma rawee ma bàyyi jàng mu ne ko su su ñetti nit doxul suñ diggante ma bàyyi jàng mu rawee ko juróomi nit mu ñëw ndax lan bay Abdou wëllëre Mayaasin ak maamam Mayacine tudde na maamam doom muy maam Abdou kon maam Abdou bu Pape Maodo si miy taawu maam Alhaji Abdoul Aziz Dabba bu ñëwee ci bis bi macha allah gis nga yàlla ni muy organiser wante da ma fekk mu dugaloon parenthèse ci. sunu doom ji Abdou takk Suzanne mii muy chrétien ñu dem Antoine may nu ko def ci mbaax nag mbaax gim ci def mooy dani dinaa leen ko may ci seen tradition yéen jullit et pourtant bu ñu ko mayoon ci seen tra tradition mu wér loolu moo tax ya ca topp ma ni lu ñu bëgg itam nañ leen ko nangu ma ni yàlla daf noo wax ni na discuter avec les gens d'écriture que d'une manière courtoise loolu la yàlla wax si ce n'est quand ils sont mal intentionnés dites nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous a été révélé notre Dieu comme le vôtre ne font que et nous lui loolu moo tax sama sëriñ bi Seyd Ahmad Tijani di way Aldo Moro garantir ko di way wan Laay kon ku nekk ak sa yonent sunu yonent boobu nag dafa indi ci sunnaam ni ku bokk ci sama xeet te yaakaar ma soo amee doom bu bis bi delsee na nga ko rendil gàtt boo ko amee boo ko amul nga bàyyi ba bis bi delsiwaat soo ko amul nga bàyyi ba mu delsiwaat bu see ñetti yoon te amoo gàtt gàtt bi wàcc na la yow waay wàccul liir mu ni su dee reyal ko ñaari xar moo tax abdu xar ma nga jëkk a def ca tudduma bu ñaareel bii beneen sunna la waaye duñu ko tudd ba pare wëlbatiku waat toogaat fii di ko tudd te altine la juddu woon ma wax ni bay Abdou danger yi ci bëtal ni ko ni ko jigéen ñi di def mën naa yóbbu nit safara ma wax leen ko yéen borom kër yi xoolal kii dinaa siiwal tur yàlla lim ko formé ay élément yu jóge ci Suzanne ak yu jóge ci Abdou mu boole ko di ko sàmm di ko sàmm di ko sàmm ba tànn bis muy altine Seydina Muhammad gane ci àddina xale bi juddu altine yow nga ni altine boobu bisu liggéey la kon samedi laa koy yóbbu def ca tudduma dal di bàyyi bis bi la yàlla tànnal bàyyi fi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ku ko def te xam ko rek mën dem safara waaye boo ko defee nag ci altine ji def sunna bi ba pare te bis bi bisu cant la ni ko xalifa waxee ñu dàkk samedi bu boobaa mu dagan ñu ñëw sama doom yi sañse seen bokk yi ñëw ñu siiwal tur wi ñu bégu ci ndax araamul waaye su doon leneen man du ma ñëw waaye Abdou macha allah ci jom ji jënd nagu sept cent mille luye tànt beeg ya ca aju xar moo xam ni macha allah suñu bokk yi ñëw doon ci tuddoon nañu ba pare te war nañoo daje santante su ma ñëwul mu wéet bu Moustapha ñëwul mu wéet bu Serigne Abdou ñëwul mu wéet waaye kon ñu xamal nit ñi rekk li ma bëggoon a jàngale mooy tudd nañu ci sharia ak sunna ba pare tey jii dañuy siiwal tur wi def ko bisu sant yàlla lekkandoo naanandoo waxante lu baax waaye xale bi ci bis boobu lañ ko tudde woon Muhammad Nazir kon xale bi ñu ko tudde Muhammad Nazir أي كتمان فتفت على نبي وعليه سلام ربنا دائما حامد يبلني جيانا من بعد ما خلاوى يقال لها التحيومتي بدرا سيد الممر نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما جبلني تيمنا إذا وداتي إسميه محمد ودنا أمرك تبين أية تمان تبتلي أمرك waruma laa dog sax maa ngi jéggalu nday man sama sama tudd sax dama ca def bi muy tudd sama taaw di ko ko tuddee moom mi fa tabarakallah ca wana goolaa ne ni leen moom laa koy tudd fekk na xuloo ci ba tàyyi mu ne ma koy tuddee doom ni ma ni ko góor gi du mën a ko wax waaye góor gi Abdou Abdou Samb mii ñu ñoo yaroondoo mu doon nit bu baax gis nga groupe baa ngi nii Modou Samba ngi nii Maamor Ngom ak ñëpp damay bañ a lim mm-hmm. waaye ñun ñi daan ànd ak moom mériwuñ ko waxuma sax eh, mbaaxam waaye Abdou alalam Tiwaawan mën naa ne képp ku bokk moom génération mi ngi lay dimbali mm-hmm. te bëggul ko man nag muy sama xarit su ma ko fekkee ci oto lu mu ci xaalis dama naan ko jël montre bu rafet ba mu takk ma ko jël kon Abdou maa ngi lay ñaanal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa nga bëgg a ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk nii ci voyage waaye ma ne bala maa dem fenn damay ñëw ba gis ma ko noonu yàlla yàlla fi bala ngaa dem dama la soxla dafa am nag loo xam ni su ma ko leeralul mën naa nekk ci bopp nit ñi du